ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal Cheikh Muhammadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naalal lislaam yépp màggale ko di ko ñaanal kilifa diine yi ak mboolem jullit ñi di nuyu kilifa gu baax gi nu nekk ci ab jataayam di sëriñ Ismaayla Mbakke moom sëñ Maodo Abdul Xaadir am koy ziyaara bu baax di ko ziyaare ci bis bi di ko ci ndokkeel di ñaan yàlla sunu boroom mu yàggal ay kilifaam ci kanamam te wéeral ko ba li mu naal te yéene ko liggéeyal maamam ak Cheikhul Xadim mu defe ko ni mu ko bëggee di nuyu suñu wëlëre wi mu feggool sëriñ Jili Ñang kennal sëriñ Touba moom it noo koy ziyaara bu baax di suñu wëlëre di nuyu ñi mu àndal ñëpp sëñ Tuubaa nag ci am gi mu am ci acceptation baaxam ak yaatoom ak wane yoonam ak fexe ba jàll set salim minat afati nga xam ne amul benn gàkk amul benn tâche sëñ Tuubaa moom mbokk ak jàmboor ak noon ak soppeek taalibe ku gëmut a ku ko mën a gàkkal amul salim minat afati jumlatiha amul ci àdduna ku mën a gàkkal Cheikh Amadou Bamba bindkat yi tey la seeni xol gën a dëgër noonu yooyu lislaam tey li seen xol gën a dëgër te bu ñuy wax ne am na ku leen déranger mooy sëñ Touba ndax lislaam ju wóor diine ju sax kilifteef gu sax kenn jiitu mbooloo topp lu mu digle def lu ñu tere ñu bàyyi kenn du ko opposé wu ca la mu nekk amul ci benn zaim benn njiit bu jiite mbooloo am ko ku du Cheikh Amadou Bamba ci jamono. loolu nag bu ñu amoon benn gàkk bu ñu mën a tomb taqale ko sëñ Touba gàkkal nañ ko Cheikh Amadou Bamba waaye mbokkam mu baax ma Serigne Cheikh ba muy tagg sëñ da koy tagg ba yàgg mu ne huwa salim min al afati jumlatiha wa ma nifaqan bi ma imanihi mazaja sëñ Tuubaa ku set la maanaam dafa set wicc wicc wicc wicc amul benn gàkk maanaam la mu doon wax ñu ne nasihun bila régine maanaam amul am kooj dara rëxu ko dafa set nga xam ne ni melaw zaahira mel la melaw baatina mel te moo ko waxal boppam yàlla yéwénal na sama biir yéwénal sama bitti notal ma samay noon jëlu may gànnaay aslaha zahiri wa batini ma man lil ida bila silaahin xamaa lu tax sëñ Tuubaa gën a jekki ñépp ab taar ñii dañuy waaje jama ñii wurus ñii di waaje xaalis sëñ Tuubaa na sama taaru biir ak sama taaru bitti mooy roy rasulullahi ak doon xaadima rasul zinatu zahiri wa batini maa kaw nii lahu mutabaa kon loolu laa gànjaroo mooy roy ko ak di ko di ko dund ak di dox dox yi na woowee muy doon dox boo xoolee ci nitaalam bi ni portaleem bi mel nga xam ne sëñ bi du kenn kenn di moom ñetti jamono moo am ñu tudde passé ak présent ak futur ñetti jamono yi démb amoo maas muy passé tey jii amoo maas mooy présent doo am ëllëg maas mooy futur kenn nga bam bi misli cheikhi lam nasma hadisa wala fi salifi dahril qadimi def naa kooku ku ñuy wax al mahmoud moo ko waxoon benn benn benn naar moo woon ku ni sëñ Touba ab nopp mosu koo dégg ku ni sëñ Touba ab bët mosu koo gis du ca ñëw wéy du ci ñu fi ne bi misli cheikhi lam nasma hadisa wala fi salifi dahril qadimi kon li ko sëñ Bay Jaxate wax démb amoo maas tey jii doo amoo maas doo am ëllëg maas kenn nga bàmba mu jenn jëmm joo xam ne nag wet yi mu remplacé yëpp feesal ko doy na ci ñu ne sëñ Tuubaa kenn la juróom-ñaar fukki at ak juróom la dund ci Zaïr sëñ Tuubaa digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi gàddaay gi ak bi sëñ Tuubaa di feeñ junniy at ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk la 1270 la sëñ Tuba feeñ muy junni at ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk nit ku ñuul nekkoon ku nu suufeel te doyadal ko mu complexe ci kanam adduna bi sëñ Tuba ñëw dindi complex xam ne na fa lay si yujibu sawaadul jism safahatal fata wa suul fahm ñuulub der du tee nit ki xam du tee nit ki séddu ci cër yi gën a rëy te loolu li nga koy xamee ñu ñuul ñaa ngi lay raamal ñu weex ñaa ngi lay raamal ñu ñuul ñaa ngi daw di ñëw kon sëñ Tuubaa moom ñu ñuul a ngi raam ñu weex a ngi raam nga xam ne li sëñ Abdourahman Mbàkke di wax ne bi hiinu baahil bii de kullu ash yow bi doxaa bi xawlin sadiqin maalumi bu ñu tàllalee sëñ tubaa ci ñu weex ñi ci adduna bi yépp kenn amul sëñ tubaa ku dul noonu dañ koy puukare woo di ko xëllantoo adduna bépp dañ leen ne xëllantoo sëñ tubaa bi hindu baaxil bi da ku a achiya wa bi doxaa ci suba yi ak yoor yoor yi bu jant bi fenkee ba jant bi dëgër fu ñu tàllal sëñ tubaa exposé ko kenn amul sëñ tubaa ku dul noonu kon moo dog mbuumi njaam ci nit ku ñuul nit ku weex xam-xam la daan puukare woo bu dee xam-xam la mu indi ci xam-xam loo xam ne nit mësu koo indi te kenn dutu ko demal ci ay muallafaatam ay kitaabatam ay tawalifam setuk mbindam ak setluk mbindam ci qualité ak ci quantité bu bindoon mawaahibu naafi wala jësbul xuluub wala muqaddamatul amdaax yam ca képp ku xam ni mu ko tëggee ni mu jàngalee ci biir wayin yi jàngale ci siira génn ci yonente bi alayhi salaam ku ko xam xam ne kii ni mu dugalantee diggante mawaahibu naafian ak jazbul qulub ak am amdah amul ci waykat yu jëkk ya koo xam ne mën naa nose ni sëñ Tuubaa di nose ci ay mbindam boole ko ci biir mbind mi ni mu koy tegtalee ci xam nan lay waxe alhamdulil haqqil mubiin man kawnahu lee yabiin alal kitaabil mustabiin maa jamii al abid dafay sant yàlla boroomam subhanahu wa taala mi nga xam ne man kawnahu lee yabiin man ka nga xam ne kawnahu ak nekkam lee nekkal ma man sëñ Tuubaa yabiin lu leer la door ko sant nag ci jagleel gi mu ko jagleel nga xam ne fadlu taxis la shakartu is qassani bi xidmatin maa xissani daa xidmatin fi àllani lahu wa fakka walla ni maa ngi koy sant bi mu ma jaglelee may xadiimi rasuul xadiimi rasuul ay tabaxaat la du rek benn waay isma tafaul lay nag gàtt nga rek toog mam neex la nga ne nga ne nga ne diw xaadimu rasul déedéet bala ismul xaqiqi la boo demee ca al malawul a'la wala ca arash wala ci sunu borom sëñ Tuubaa nee na benn jaam bu nekk ñaari malaakaa ngi sa mbagg kii tudd raqib kii tudd atiid defe al alquran moo ne maa yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul kuy wax lu dul ne ñaari malaka yooyu dañoo ko bi bind muy raqib ak atid sëñ Tuubaa nee na ñaari malaka yooyu bët bu set bët bu set bët bu set la wax waxut weer waxul at dane bët bu set danañ présenté wu ci kanam suñ borom na ko ahmadou bamba mooy abdullahi wa xadimi rasul yashhadu li bi daa raqibun wa atid fi kulli yawmin inda dil arshil majid fi kulli yawmin kon ginnaaw doomu aadama bu nekk malaaka yi say mbagg ñoo la gën a xam kon ñoo gën a xam ku ne la ngay jëf ak ka nga doon ñooy jugé ñoom ne waxtu wu nekk ñooy seereem ñooñu sëñ tubaal ñooñu rek la jël ñuy seere gis nga ba mu nekkee ca géej gi lakk shukru wa ridwaan minni wa shahidi yi atidun fi jazirati ma yoon mbaa ba muy bëgg ko mu yónni amu ko bëgg lu mu naan du ko am bëgg a jàpp di wàcc ci xur di woor ba ngoon di dogem ñax dina ci wét nee nag kenn du sama seere ku dul raqib ak antit tafoo ku ko soof ku dul kuy mooy boroomam tànnal jikko yi nag di jox aji laaj naari gànnaar yi ñoo wax ne téngul sëñ tuubaat dara du ca fanaan lu ca tegee mu séddale ko ida maxtawat yowman qanaatiruka fihi taqassamaha alaafuuna yow maxtiwaihi loo na ko yi mun a tegal foofu am naa yitte mun a seetal lool moo tax amul poos amutub kalpe du fas ci musuwaar amul koppar foor lan lay denc ci gaalam kanzil kitaab wala hadiid wala adab laa jëm xo fiddatu wala jam wu dëb te moo ëppoon wërsëg ñëpp sëñ Moussa Nawel moo ma nett leen sëñ Muntaxa nee na ko sëñ Basiiroo ko wax ne maa ko fekk ca tawfeexum sëñ Moussa di waxtaan ak moom ci yu baree bari dikku sëñ bi Touba laa ko doon laaj ak ni mu soloo woon bi muy dem Ndakaaru ma di ko laaj benn par benn ne ma sëñ Muntaxa daf maa na ma sëñ Bachirou mas na maa wax ne ma maag sëñ Modou Moustapha rek sëñ Fallou ni ngeen ñuy coowee ci addi yi ñuy jox alal yi ñuy jox ni ngeen ñu koy coowee bu sëñ ma Massa génn ci genn kees ban ne sëñ baa ngi fii diggante ba mu fay def lañ koy xëpp mooy li ñuy jox ci at sëñ Mountakha ne ko loolu nag maa ngi ko xamee ci ba toogee jataay bii maa ngi xamee bi ma toogee jataay bii nga xam ne bu ne sëñ Touba ma nga kees sàngam ba nit ñi daw fëx bay sànni nee na lañ koy jox mooy tolloog liñ leen di jox at mu ne ko loolu maa ngi ko xamee nag bi ma toogee ci jataayu sëñ bii defe naa moom ngay gis mu toog nit ñu wàññi quatre cent millions un milliar jox ko ci jataay kon mën naa tekki lee ma la waxoon ku soñ nag dajale cinq cent millions di la jox amul réew mi bu ñu doon dajale alal di nanga mit ku gën a néew lu tuuti la ñuy jox ñu mën a takki milliard di la jox boole kook di jooy naan ñaanal nu loolu la muy tegtale mooy la yàlla def ci melokaan woowu loolu Cheikh Mamadou Mountakha mesal na ko lii ci la bokk waaw ah, jërëjëf Mbacké bàlla maa ngi jégalu gisuma woon sëñ Mamor maa ngi lay ziar balay sa Mbakke loolu kon day wone ni mu ëppee woon ñëpp wërsëg nga xam ne wet gu ne maanaam penkook sow da daan dajjiku fu ne jëmi sëñ Tuubaa tasiiru ilayhi naas sharqan wa maghriba fa min raakibin barran wa min raakibin bahra min ash-shaami jaa'atu wufuudun wa makkata wa min taybatin jaa'u wa jaa'atu misra ku yàlla mas sa wàcce ci kaw suuf mu la ëpp wërsëg penkook sow day fëx dëlëf dëlëf ci fu ne ñëw di ko xam wa rukubin ka atrafin azimin taxtali bi in stoqran arduhu ka samaa'uhu ya ummuna nayla alxaaji gayra munaqasin ala siqatin in asbahu bi finaihi ida maxtawat yowman qanaatiru kaffihi taqassama alaafuuna yow maxtiwaayihi lu jal yi bari bari kon di jox aji laaj di dimbalay dëkkaaleem defar nga say mbokk defar ay jàmbur ba ñépp jag nga jàpp sa njàmbur dimbale na ñëpp ku ñëw di laaj mu dimbale la waaye nag dimbale dëkkaaleem du tooñ nag daa ma sa rëdd juróom benn rëdd ci njeereem jël loxo bi teg ci digg bi ne yett yi laa séq ak sama borom yett yi laa séq ak jàmm ni sama borom lu mu digle def naa mosuma def lu muy tere lu mu dogal neex na ma daal na yett yi laa séq ak jàmm ñi mosuma cee tooñ kenn ku ma tooñ baal naa la lu ma bokk nañ moo tax Cheikh Ibrahima Jub Almachari nee na xanaa gisoo ko alam tara anna allaha ata rutbatan aqaaribu taadu biha wal abaaidu yàlla jox na ko dara jot ña gën a sori te ñu gën a jege ñëpp la ciy dimbale moo tax di dimbale dëkkaaleem du tooñ te ku tooñ mu jëggal mu jéggal ngir boroomam waxuma xafawtu anil ardaayi am na lettre boo xam ne daa yegg ci wax ne koo gis ci lu dul photocopie faw nga tabbi àjjana ba mu koy bind dafa wax ne li yaalam kullu man waxtu ala rasma ana kaati asu afa an kullu man zalama ku gis mbind mii ak foo nekk na nga xam ne man mi ko bind Ahmadou Ball Bamba baal naa képp ku ma tooñ du ma benn bakkan li may yéene ki aju ci man di ab murit laa yéene ki ajuwul ci man ba noppi di jullit boo ko jàngee wax fi li kulli muminin wax fi li kulli muslimin wax fi li kulli muhsinin wa axirna bi xubbi kulli muslimin wa najjina min sharri du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir borom yemul ci ku tooñ mu jéggal ngir boromam boo tooñee sax day taxaw mu fat tin la jéggal la ma nopp di la tinul di may ku ko bañ Cheikh ba Fall daana ñëw ba yàgg ci mpéj mu naa sëñ Bamba baax noonu sax ci ceex gi lañ bi tubaab yuy gasee kamb googu ci Gabon te sànni ci sëñ Touba mu daanu ci kamb gi ñu maasale ko daw ñu bind lettre Cheikh Sidiye traduire ko yónnee ko maam Mor Diarra borom Cham indi ko borom Daaru dafa am ñooñ dañ doon reetaan di ciblé wu di ciblé wane ne sëñ Touba des na ci géej gii tubaab bi bind nañ ne fàttu na bi jaaxle amee keroog bi sëñ Touba yónnee lettre maam Thierno Birahim da ko wax ne ko neel diw ak diw du ma seen moroom ne ab ciili di tiime ab cuut ci man koo lor ne laa def ci man leen a lor ne leen du seen moroom te teewul ñu ngi rumbaloo ci yëf yi di riirandoo moo tax léeg-léeg nga gis ko fil signal bu ko jàppee la mu doon jatang loo ko fóot fóot di ko tee xeeñ ñàkk yar geeg soxor gi lool rek la moo tax gone gu ko ci xamul nag ba ne teel dafa wërta dal ñu ne la fii mooy sa point xam nga ne ku maamam doon wax loolu du yéene yoon yu avancé du yéene surtout sëñ Tuubaa mel ne nit mooy waral sabotage yeeg fu mu dégg dara amplifié kook yokk ko noonu la maamam meloom gàccaa ko dara rek sa intérêt la ci bàyyi nag ndax buñ la joxut doo am te boo bàyyee kenn du la jox ku ngeme rek déclaré na lu ma waaye doon jox ngir suñ Tuubaa bakku doo ami tool say doom génn ci yow kaf kafe boo ko tegee sa ëtt du jeex boo xamee ne loolu am na nag nga rumbuloo ci rek na ci yàlla di wax ci suuf ba noppi tey mos moo taxit loo ci gis di ku ko bañ di woo ko foñ di neexal di woo ku ko foñ di neexal danga koy won ginnaaw mu di la dimbale safoo ku ko soof ku dul nag ku dul kuy mooy boroomam cheikh mahamad lamin baara bakki nee na fillaahi du shiddatin qaasil fuaadi ala man lam yakun min jamihi alxalqi mumtasila nee na sëñ tubaa li muy nooy nooy li muy lewet lewet li muy labir labir xol bu wow la am ci ku nunguwul a topp ndigali yàlla yi nee na ku nunguwul topp ndigali yàlla yi mënoo xam nooyu sëñ tubaa mënoo xamuk lewetam kum mën a doon dalay jàjj léegi la jayaate xew rek ak nee xalaat waaye sëñ Tuba ñett jataay yi ngi nii bu ci nekk te sëñ Tuba ay coomo topp ko sëñ Darou Assane Ndiaye téeméeri rakk la daan nafila sëñ Darou Assane Ndiaye nee na ku yàlla bind am nga ñaari malaaka muy tudd rakk yi muy tudd antit man Darou Assane de sama ñaari malaaka mii di bind lu baax mii di bind safaan xaw ma muy bind lu baax dana bind lu baaxam déet waaye wóor na ma ne muy bind lu bon du ko bind ndax man Darou duma ko def malaaka mi bindu safaan sañ Daaru Asan ne du ma bindal wirgil ah man ko def te teewul mu topp Cheikh Amadou Bamba te sëñ Tuubaa nee na la ko góor di jiitoo ci yàlla du doon lu muy jëf waaye coobar yi suñ borom lay doon waaye sëñ da sëñ Daaru lu mu dox demal siyaare ji ko juril habib alladi yaquudu zairahu ila tariqi najaati wal karamat zaakal bakkiyu lisil baari faddalahu ala kasirin man xaazul maziyat boo ko siyaare jee dem ca moom day dana la wob mat wóbbu la ci ngënee li gën a mat te gën a tedd mooy ki nga xam ne moo lamboo la kawe te ba mu ñëwee sëñ Tuubaa dana ko man daaru asan li ma indi ci yow mooy gan laa gu bëgg ma berneel waaye ngërëmul yàlla képp laa bëgg soxlawu ma leneen waaye dem na ba dégg jasaak rabbuka fi daarayni yaa xasanu yàlla na la yàlla fay ci adduna ak alaxira yow asan ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye teewul bi di ko dénk lam la koy soññoon fala tazal bul dañ kon ca la nekkoon fala tazal fi tuqaa warsi mujtahida kay laa yu laaqi alansiyaan wal fitan bul dañ bul teggi sa tànk fi nga ko teg muy ragal yàlla ak jub ba muy dégg Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ lu mu ko wax te Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ lan moo nekkoon dayoom ak melokaanam fa faddum ala sidqi wal ixlaasi mujtahida fi sirri wal jahri kay tan mu mazayaka maa ngi lay dénk sellal ak dëggal teg sa tànk fa ko war a teg ba muy dénk sëñ ma baabu lu ko àllaka yaa ma baabu bi si taali awaamin arrahmani di mataabi ba muy dénk murid bi jëkk jibbulu sëñ aadama gëlu hada wa ya aadama ya muridu in kunta nuur rabbina turidu yowmal qiyaam ndake li aju sëñ tubaa mutu moom ramm sëñ jéeri waat wax na bis penc danaa rammul sëñ tubaa juróom-ñaari xarnu sept siècle loolu ko ko ramm fu lu fay des juróom-ñaari xarnu te téewul ñuy raamal ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ku woon sëriñ bi kon melokaan woowu mu defaroon nit ñi jikko yooyu mu tàggatoon ci mag ñi looloo war a dellu si wat moo tax mag ñi amoon ngor bëggante yéenante jàmm kër mag moo dem fekk jikko ju rafet jooju suux ca ka ca des waaye yonent bi alayhi salaam moo ne inna annaasa ida taallamu alilma wa taraku alamal te taxaababu bil alsinati wa tabaagadu fil qulubi nit ñi buñ jàngee xam-xam ba nopp bëgg ba jëfewuñ ko jàng xam-xam ba nopp jëfewuñ ko dañuy bëggante ci ay làmmiñ ba nopp bañante ci xol foo seen nit tapp ko parce que sama waa ji sama gaañeen bu la wanee ginnaaw nga xolu bon bu bil alsinati a tabaagadu fil qulubi bëggante ci làmmiñ mais bañante ci xol ku la jiitu nga mer ku am loo amul nga mer ku sëñ bi fonk nga mer lu waaye am nga seet lu ko yàq jërëjëf xanaa ku ne waroon naa waxuma la mais bul tey bu nee sëñ Jili Ñang wala ñu ne tey sëñ Ismaayila mii xanaa war ngaa yéene sëñ Tuubaa taalibe bu mel nii wala sët bu mel nii waaye yaa ngi defi pexe yaa ngi def nangam yaa ngi def nangam waaye wallahi wallahi walladina yamkuruuna sayi'aat lahum adabun shadid wa makru ulaika wa yabuur defe naa sëñ ji li ñoom ñii xam nañ nga xam ne ñoom borom yi këf lañ xam nañ ne kacciri la waxuma wax gi ko suñ borom wax rek wala si yam ko ci yàlla hum adabun ali shadidun waxuma ko rek waaye wa makru ulaaka yabuuru xam na ne kacciri la mag ñi loolu lañu yéenante woon jàmm dafa am ku ñu aba ishaqa ahlu basra dañ koo mas a laaj na ko lu tax jullit ñi di ñaan yàlla te du leen may te suñ borom na fa isa saalaka ibadi fa ani qaribun ujibu da'wat da'i idha da'ani aba isaq na leen lu ko tax mooy maatat qulubukum ala ashrati ashyain seen xol yi dafa dee ci fukki mbir moo tax boo leen ñaanee di tallal yàlla du nangu ba ca njëkk mooy araftumullah taala walam tuudu xaqa xam ngeen dëgg-dëgg yàlla waaye joxoo leen ko xaqam jërëjëf xam ngeen yàlla waaye joxoo leen ko ci biir armeel yi ki ñuy gas di ko suul yàllaa ko rey ni mu ko reyee la lay reyee waaye ci armée yi ngay jëw da ngay ne ci ñaan gi di ñaan sa mel ni mbokku taali bi dugg si yàlla dara jaal ko ku sagam muy ñëw nga bàyyi ñaan gi wokk xoola sa waay armée li muy dugg di jaay maanaa de yàq nga sew yiw kon xam nga moo moom ñi ne ci armée li di foto naan waaw fii mat naa bàyyi xel koo koy bàyyi loo xel ñëpp fii ñëw xaaral sa audience rek aynama takunu yudrikum al kuntum fi burujil mushayyada araftumullah taala walam tuudu xaqa xam ngeen yàlla joxu leen ko ba ca topp xaratumul qur'ana walam taamalu bi jàng ngeen alxuraan waaye jëfewoo leen ko gis nga boo boo jàngee alxuraan te jëfe ko ku ñëw andil la ci nit ab xabaar loola alxuraan wax in jaakum faasiqun bi nabain fa tabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma faaltum nadimin bu benn waay ñëwee ne la diw day sàcc wala diw day njaaloo wala diw day def lu ñaaw alxuraan ne fa bay na ngeen ko gëstu xool ko ba mu wóor waaye diw day def nangam nga ne xamoon naa ko da nga koy door a yëg ba ma ko xamee de xamoo ko woon boo demee bañ xool ko mu set wicc dara amul nga ne cay gaa yi kon ba noppi ne ubbi kamil bi bëgg rek ñu ngunum ngunum ngunum ngunum ngunum la xaratumul qur'aana walam taamalu bi buñ jàngal alquran kenn du jëw kenn yaa ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran mina zanni inna ba'da zanni ismun wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da an yuhibbu ahadukum an yakula lahma axihi mayyitan fa karihtumuh fu ndul jëw amut fu ne la ñuy jëwee alxuraan tere ko laa yasxar xawmun min xawmin bu kee benn kenn reetaan kenn oto képp boo ko yoree sa waay di saxaar nga di ko ree nee maa ngi waaj a moom dama koy wax ne ko ñun murid yi dañ laa war di fay weer dëgg la ndax li ñu bëgg a wax Serigne Touba te mënuñu koo wax yow yaa ñu koy waxal bu nu waxee sëriñ ab safaan nga génn ndax am pànk la moom bu génnee wax kookee waxaaleen ñu ñun ñëpp kon fépp fu la fekk dan lay def ni sunu bopp ak fu la fekkuti xam naa ko bu baax a baax ndax jaxasoo nan lool sëriñ Ismaahil mais sant nan la bu baax ndax nee li tax may sant mooy dañuy waaj yàgg ma ak yow ne fa ñuy jàngi wet lan ñu daan tase man ak yow ne loolu yàgg na lool mu doonoon sama maître nag moom ne xawoon a kii woon lool ci moom ne ñu yàgg takkoo lool ne fu ma ko masaale gisee ne sama stress day daal di wàcc ndax dañuy waxtaan ba fàtte ni danoo nekk ci liggéey kon sa bis bii lépp lu ma ci mën a def maa ngi wàcc Serigne Touba dama koo xeeb lool ndax bis bii sama bisu bopp la ndax man Serigne Abdou Khadir mooy sama lépp lépp lu nit mën a gis ci man ba di ko yëg damaa gën ni Serigne Abdou Khadir tax na gis ko wax naa ko bari ci démb Serigne Gana man su ma ñu gisee Touba Serigne Abdou Khadir man naa ko wax ñëpp jël yëpp yëpp ko fépp ne ndakaaru képp kenn ëpp mu fay pare na fa nit ñi di amee alal nu ko raw laa ko fa mën xam naa ci dara man de dafa am bis ma tëdd guddi ne boobu maa dëkk dëkk supprime ab néeg laa fa amoon ne mu métti lool ne li may wax am na ñoo xam ne buñ ko déggee dinañ xam li may wax àdduna dara yàggul ne booba Dakar métti na ci moom métti boo xam ne ne li may wax yàggul de barki dem rek la dañ daan toog ñaari fan ne barke Cheikhul Khadim du na am ceeb bu nu lekk ne giñ ko ci magug sunu borom bi am na ku tudd sooy bu jàng nekk unité 13 doon jaaykatu karo nee dañ ko daan seet nee am na bis boo xam ne ñaari fan lanu toog lékkul ma ànd ak sama benn mag ne ko ne ko seet ne bi àggee am fa dara ut lekk ñu àgg fekk mu tëj ne li xewaat foofa nag ñu ñëwaat ba supplim ne maa ngi fàttaliku bis boobu lanu am matul 500 ne ñu jënd ci moo xam sa dugg ci biir salle bi di ko togg far mu këpp loolu soo ko waxul doo ko xam ne ma muñ ko muñ ko sell àgg ba sa sa ne sëñ Gana àgg naa ci dem ci bërëb su ñuy ak lekk bu ñuy duy taabal ji dañ koy duy ba mu fees dell lekk ba ñi nga xam ne dañuy ñëw di jënd si lekk dañ koy fekk maanaam teel xéwlu muy diggante boo xam ni mënoo koo xàmmee ak tey jii ne mu metti lool nga muñ ko mu neex lool nga sant Seexul Xadiim ne li tax man ni Sëriñ Abdou Khadre tax ma ñibbisi bi muy neex nga xam ne mu ngi neex damaa jënd Sëriñ Abdou Khadre ne boo xoolee sama statut ba ci démb bind naa ko ci jumaay njaareem laa ñëw fekk sëriñ Abdou Khadre ci xutba bi ne fi tolloog xutba bi ne mu cappandaay sal xaftaan bu ne jiital ak set ci biir ci gént gi rek ne bi ma dikkee yëkkati ñetti téeméer di ko ko nuyoo nee na bokkoo nuyoo ne saa bopp ne ko may kan ma ne ko maa jiwee sëñ Xaadim mu ne ma xam naa téye sama loxo làmb poosam génn ci ñetti këyit ñetti junni ci gént gi jox ma ko ne ne ma demal Touba te toog fa ma génn mais boo génnee jumaa Njaareem am na kër gu naan bàyyi tëdd Juuf jàkkaarloo jumaa ji ne fa la taxaw ci gént gi rek. ne am na ay iranien taxi iranien yooyu amoon ñii daan taxaw aéroport ne am naa ko ma ci xamoon ku naan Thierno Diop ne bi moom laa taseel mu taxaw mu ne ma gaawal yow rek laay xaar ne ma ñëw yéeg bi may dugg ci buntu Touba bii ci laa yeewu ci naaw boobaak léegi Dakar itte rek ma koy yóbbu waaye dematu rek sax waaye li ma sëriñ Tuubaa jox nit mën naa sax Dakar ñaar fukki at te ko am kon kookee bisam du ma ko yemale benn bis te dégg naa ñu ne sëriñ Abdou Xaadir kër goo xam ne am ji lay kenn du ko fa tare ne loolu am naa ko kon yow boo bis di sëtu sëriñ Abdou ñu tuddee ko sëriñ Abdou sama diggante yow mel nii mu mel lépp loo woote kenn du ma ci jiite kenn du ci man jikko ji ma xam ci yow bu ko ñëpp xamoon ci yow kenn du la bàyyi nit ku baax na nit ku oyof na nit ku sell na nit ku dund Sëriñ Tuubaa ne xaw ma dara ci caaxaan wala xawuma la ko ne sabiyan sabiyan wala kaana nabiyan ne nit ku nekk man ngaa jaar ci fi waaye xamee mën a ko man xamee mën a ko ne li may ñaan Serigne Touba taxawu la suturaal la ne Serigne Gana nag li mu loolu rek moo am sunu xol yii buñ ko setaloon li ñu Serigne Touba di xéwale mënuñu ko jariñoo ñun dong li ñu sonal mooy sunuy xol ne waaye lépp lu waay am nan ko ko yéene ñaan mu yokk bu yokkoo mu yokk ndax fii ñu toog képp ku fi def dara ñëpp nga ko defal ne ndax ñi fi nekk ñëpp sëñ Tuubaa doomu nañu bokk loolu rek laa doon seere ne bu ma waxul dinaa am lu ma yóbbaale te bëgg ma ko yóbbaale yàlla la yàlla sàmm taxawu la salaamaaleykum wa rahmatullah